asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, du ma guddal dañuy sant yàlla ci yonente bi sallallahu di yëkkati kàddu ci turu madame la ministre Aminata Assome Diatta di am mbégte di ko def fii ci Ñanjoxan ñun buñ fi yëkkatee kàddu war nañu ndax fii la ñu fii la ñu màggee euh, ñu ngi

sëñ Thierno ñu ngi lay déggee di am mbégte loolu ci say kaddu ci sa taxawaay di la ñaanal yàlla yàlla sax say kaddu nag dafa méngóog jikko yi soxna si ma àndal ñu ngi ànd ak moom ci ci jom ci fulla ci bëgg yonent bi ku bëgg yonent bi ku bëgg sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy ku bëgg El Hadj ku bëgg sëñ Babacar Sy loolu xam naa ci dara da di nit koo xam ne booy ànd ak moom di liggéey boo sàgganee dina la lor ndax jikko ndax melokaan wax nañ ko sànq wax ci bare na ci loolu lii firnde gi mooy mu tax mu sonn loolu mooy jigéen la di sëy coono yi jigéen tey ñëpp xam nañ ko jigéen yi fi toog ñëpp a sonn tey jaaraama yéen jigéen yi yal na seen teraanga sax li ngeen bëgg yàlla ngeen ko am ci seen njaboot rawatina mën naa ne ci sëy sëy moo ko tax a ndax daa xëy nekk ci wàññi soo ko woowee mu ne la non damaa taluma la maa ngi ci sëriñ sëñ bi rek laa tax kii taxawee noonu nag doon ministre de république am yenn dayoo yi booy waxtaan ak moom ci liggéey mu ne la tey moom amul liggéey may ma démb ak tey moom sama sëriñ laay tudd kooku bu ñu taxawee fii ne ñu ngi teral tàggkatu yonent bi war nañ ko mën a gën noonu lañu ànd ak moom mu bég loolu nag mu bég loolu ci li mu fi fekk sonn na lool dëgg la waaye ni nga waxee nii ñu organiser bés bi dafa ala daw bi ni ñu koy waxee yàlla na sax maa ngi félicité personnellement ñi ko organisé sëñ Mouhamed yàlla sax Mouhamed Ndiaye ñi ngi lay ñaanal yàlla soxna Assome Aminata Diatta nee na lii yàlla na nga ko yàgg def yàlla nañ la fi yàgg a fekk nii ñu ko àndee tamit di ko liggéeyee yàlla nañ ko yàgg a defee noonu li ñu toftal ci kàddoom nag ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm ci bés yi ñu jëm muy bésu élection jikkoom moom buñ ko ñëpp toppee kenn mësu koo dégg mu wax lu ñaaw kenn mësu koo dégg mu def lu ñaaw jikkoom bu ko ñëpp toppee ci noonu incha allah dinañ def élection yu mucc ay te ñu ngi ñaan yàlla yàlla lépp sedd muy ci Kër Massar yàlla na sedd ci Kër Massar ak fudul Kër Massar mbégtem daal ci jotaay bii mbégtem ci jëmm yii mu fi fekk mbégteem ci kàddu yii mu fi dégg nee na am na fu muy tàmbali waaye am fu muy yem noonu lañ ci ànd ak moom ànd ko ak képp ku fi nekk ñu ngi gàttal di sant di gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg teeri lii ñu fi yëkkati ci kàddu yu sell yàlla dugg ci xol yi bu duggee ci xol yi yàlla na feeñ ci jëmm yi bu feeñee ci jëmm yi yàlla feeñ ci doxalin bi ak jëfin yàlla mën na ko yàlla ñu ko yàlla boole defal loolu moo nekk ci jëmmam ji noonu lañu ànd ak moom buñ ko gisoon mu mel neneen lu nii ñu bakk am nañ ci fulla bu mat sëkk ndax fii lañ juddoo suñuy bàyyi ak suñuy yaay noonu lañ ñu yee kon Thierno am nañ mbégte lool ci yow am nañ contentement lool suñu Cheikh ñu ngi sant di gërëm di ñaan yàlla ngeen jéggal ñu mën a àgg ci ndax suba am na programme bu yaatu bu koy xaar moom lañ tabb mu nekk candidat bu département bu Kër Massar ñu ñaan yàlla yàlla na ko may ndam yàlla lépp set te ñu leen ci ku fonk ñaan ku gëm ne tàllal loxo ay mag ñu ñaanal la lu am solo kër bu nekk dugal naa ko fii saa suñuy dem daf ma nañu seeti mag ñi mu ñaanal kon nag kuy doxee noonu doxin bu rafet ñu ngi fekk loolu di gàttal ko di sant di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla nañ ko teewee nege ni déwén yàlla bu kenn wuute te yàlla xéwal yi saawaan baawaan jërë jëf ngeen mën la